baal nga présenté wu. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab eh, di nuyu sénégalais yëpp di nuyu di sant sama ñaari waajur di sant yàlla bu baax di sant population Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab voilà. IFA ñu gis fan yi fu ñuy door a commencé du ma ne kan mooy IFA genre yooyu noonu palmarès ak loolu moom wax dëgg fànn yaakaar naa ne tey ëllëguñ fi li ñu fi indi mooy euh, semaine bii passé ah xëy nañu xëy. gis euh, maanaam euh, ay nit ñoo xamante nañu dugg ci biir commune Tivaouane Peulh fi nga xamante ne moom mooy ca euh, yoonu géej ba ca filao ya ñoom itam ñu nga ñu see ñëwaatal nan nga ko yëgee. waaw loolu moom demb yëg nañ ko te biñ ko yëg tamit ci jour bi la. Hmm. dafa am ay nit yu fa demoon ñu woo ma téléphone. xamal ma loolu man ma woo ma woo ak kii directeur cabinet maire bi Babacar Seck laaj ko man ma woo directeur cabinet maire bi Babacar Seck laaj ko mu ne moom yëgu ko après mu ne day laajte maire man ma déplacé wu dem ci site bi fekk fo waa ji ma laaj ko mu ne loolu état la ma ne ko est-ce que maire yëg na ko mu ne ma maire moo suñu autorisation boobu pour ñu mën a dagg garab yi après nag ñu arrêté ko biñ ko arrêté nit ñi commencé di ñëw bi nit ñu ñëwee nag après nag boobu ba léegi nag ñu ngi réunion mais ñun dafa am loo xamante ne daf ñu see xaw a jaaxal. mooy tey am na ñoo xamante ne dañoo jël combat bi. Mm-hmm. ba kaa politiser. ba koo def affaire leader. Mm-hmm. affaire politique. Mm-hmm. loolu nag ñun duñ ko nangu. ndax lii du affaire politique lii affaire dëkk bi la. lii affaire commune bi la. lii ñëpp ko bokk. kon nañ ko teg si dëgg teg ko si yoon. bu poste ñëwee ñu xëccoo. mais bu xeex jotee wala taxawal dëkk bi mm. ñu daw di nëbbatu. Mm. mais avant avant ñoo dem foofu noonu maanaam euh, waa ji Babacar woo ko muy jotuma ko. Mm. jotuma ko mais am na ko ko woo. sama kanam. maire bi ne ko man wax dëgg yàlla euh, euh, li nga xamante ne moom la gaa yi def ànduma ci cent pour cent man loolu dëgg naa ko maire léegi nag man li nekk si biir yëpp xaw ma ko mais man sax maire duma ma ko wax dara ndax soo xoolee maire du ma ko wax dara mooy lu ko nit wax da koy tooñ ndax maire ñun dafa am Tivaouane Peulh dafa am ñu mu fal ci mairie bi muy trois adjoints au maire tey ak trente conseillers yaakaar naa ñun ñooñu nekkal Tivaouane Peulh comme ñàgg ni mu amee ay conseillers am mm-hmm. ñàkkurab am cité ñeneen ñëpp am ko mm-hmm. kon Tivaouane Peulh dafa am ay conseillers yoo xamante ne tey ñoom dañuy topp ci intérêt Tivaouane Peulh bu dee nag xamuñu lan mooy rôle conseil dañoo war a démissionner kon waruñu fa nekk rek ay esthétique wala ay marionnette yoo xamante ne lu xew ñu yëguñu kon dañoo war a démissionner voilà. kon ñoom sax du ma wax ay pion maire dama ne ñoom ay dañoo complexe xamuñu lan mooy rôle conseil ndax bu ñuy laaj baatu askan bi dañoo wax dañ fay nekkal askan bi. ba askan bi dënk leen seen baat ba pare ñu bëgg a jaay askan bi mhm. loolu nag dootul am commune Tivaouane Peulh ñàgg loolu jeex na fi mhm. fii naxaate moo fi jeex fii dëgg moo fi dox mhm. ñun ñoo campagne ba ñu gañe lépp lu ñu bëgg rek dañ siy moom mooy ñett conseil ki nga xam moom mooy ba de quartier ak ki nga xamante moom mooy monsieur Niang ak ki nga euh, président chef mooy chef de garage. ah ñoom itam xëy na maire da leen pour ñu xool li nga xam ne moom mooy problème bi fa am mais tey kayit gis nga ko ah, gis naa kayit bi gis naa ko gis naa ko euh, mais ba léegi commune bi gis naa ne ñoom opposé wuñu ci kayit bi liñ ci wax ba pare fay na frais yi kon tey ñoom bu ñu taxawee fii naa non dañuy kaas dañuy wax ñoom li ñuy def yëpp xam nañ ko mm-hmm. sa waay mënuñu la jiital dënk la dëkk ba pare. ngay nelaw ba sàcc bi nga ne sàcc ñëw na jël sa bagage dem yoonam ba pare nga yeewu naan yëguma ko yëguma ko kon yow kenn warulaa dënk ñii dañ leen dënk suñu ëllëg dënk leen suñu dëkk dañ ko war a doxal suñ ko mënu dox ñu démissionné wala ñu ne mënutuñu dañoo télé ñu delloo suñuy responsabilité fii amul lu ñu maslaa ay naan président wala état noonoo non ñun suñu njiit yi la ñuy waxal suñu mënul téye dëkk bi respecté dëkk bi liggéey nañu delloo suñu dëkk loolu mooy wax ji gis nga raay raayal bi moo fi bëri. Hmm. voilà. mais loolu man du ma si dugg. Hmm. ndax euh, kayit bu ñu falsifié soo kenn ñeme ko publier. Hmm. ndax loolu affaire état la. kon tey ñooñu yëpp ay waxu picc la ay waxu rumeur la. nit ñi nañu wax ni fi am mooy suñu conseil yi ñoo liggéeyul. gis nga Tivaouane Peulh ñun ñoo suñu mbokk yi nii ñoo ko tardeel di xëccoo. depuis Omar Gueye ñu ngi xëccoo mënuñoo juboo ba mairie bi dem ci loxo papis mënuñu juboo kon bu ñu toogee fii naan non ñun bëgg nañ bëgguñu dëkk bi seen intérêt mu leen tax a jóg loolu mooy wax ji. mais ñu ci saa si bi nga xam ne euh, point de presse boobu. non point man maa foofu. maa ngi woon foofu ak ñoom bas <coughs> ak gars yëpp presque mais jeunesse bi ay jàmbaar lañ dëgg la dañu kaas mais tamit ñoom fi ñuy wéeru moo baaxul maanaam yow nit mënul yor jaas di la rendi pare nga ne ngay laqatu ci moom loolu daf munul ne gis nga nit booy am fulla dangay ngay taxawal sa bopp mooy mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jël ay njiit duñu ay njiit gis nga leader yombul gis nga leader yombul fii Tivaouane Peulh amul leader Tivaouane amul leader leader mooy kuy boot dëkkam di xeexal dëkkam di taxawal askanam mais amu fi li fi am mooy intérêt personnel ay xëcc diw laa àndal diw laa àndal loolu nag dootuñu ko nangu fii voilà te collectif bi gars yi fol sax collectif bi dañ koy xoolaat ndax ñoom dañoo jël suñu collectif dem jaay ko waa mairie bi dem di négocier ak conseil di réunion ak conseil te ñun yëguñu ko te ñun yónniwuñu leen ñun dañ leen lépp lu ñu def nañu toog te ko ci table bi ñun yónniwuñu kenn pour ñu waxal ñu yëguluñ ko kenn dañoo rocceeku. Hmm. waaw dañoo rocceeku ay ñetti nit non du ñu wax kenn dara hmm. ndax ñoom dañuy yaakaar ne affaire bi ñaari nit ñetti nit mën nañ ko petoo fii suñu dëkk la hmm. fii kenn ëppaluñu fi dara dañuy wax ak nit ñi lu leer mënuñu ko ñaari collectif moo fi am wala dix collectif ku nekk taxaw monte collectif yomb na ku nekk da ngay sa liir monte say nit ànd sa mbooloo taxaw loolu mooy collectif yaa ngi dégg bu ñu respecté wul nit ñi nag ñun dañuy former beneen collectif bu leer mhm. woo mbooloo bi nag suñu gannaaw yëpp ndax ñun ay responsable lañ si dëkk bi mhm. kon du ñu nangu nit du ñu fontoo mhm. voilà léegi nag dañu mën a respecté dëkk bi rek ñu ànd mënuñu respecté ku nekk bay sa waar. kon collectif daal ni ma déggee nga waxee mooy tey na sa xel fu mu jëm itam ndox na fa non fi mu jëm ndox amu fa ndax ñooñu conseil yi ñu dem di di yaakaar si ñoom ñoom ñun ñun yaakaaru si conseil yi ndax conseil ñun ñu ñoo leen fol surtout man mi tok di wax. damaa génnee sama xaalis pour ñu folu dugg ci terrain pour ñu folu kon dañoo war respecté ñun dañoo am kaddu gis nga ñun duñu ñun duñu ay surga ñun ñooñu duñu suñu leader ñun ay leader lañ kon dañoo war respecté suñu leen dënkee dara ñu respecté ko mairie xam nga lan la joxe information mairie dafa war a joxe information suñu xamul du mairie bi lañu war a laaj mais mairie boo am boo ko laajee danaan yëguma kooku kooku yow boo jaaxle soo demee si moom yow dalay gën a réeral lu xew mu ne yëguma léegi nga bëgg a dem foofu nga naan non dañuy négocier lan la ñuy wax ñoom ñun information yi bëgg ñoom mënuñu ko jox ndax premier jour nee nañ xamuñu ci dara koo ku xamul dara ci mbir hmm. Hmm. itam euh, euh, euh, am na koo xamante ne nee na sax nu mu tudd waay jibi xaw ma papa bi nu mu tudd bi suudal waaw nee na itam am na fa presque ay hectares yi hectares maanaam te ñu bëri itam ñu naan nii. seen intérêt moo leen tax a jóg yow tey ban jàngat bi ci am gannaaw ba nga tooy. waaw li ma de kaw ji moom am na fa am na am na fa ci li ñu wax ci ay kayitam ak lépp ak waa dëkk bi moom dafa dem ut nikaatam ut ay kayitam nekk fa di béy te nit moom foo nekk di béy ba nga am fa ai kayit dafa ay pen yaakaar naa loolu sa moomeel la ndaxte ñun suñ ko bañalee moomeelam kon ñun mënuñoo kaas Tivaouane Peulh ndaxte Tivaouane Peulh tey li tax ñu naan fii ñëw fi moom littoral bi dañ ne suñu mami, yi fa lañ nekkoon laana puus ko la tuddoon hmm, cosaan la moo tax du mooy droit coutumier ay armeel mooy cosaan droit coutumier moo tax ñu am sañ-sañ naan suñu suñu dëkk la suñu dëkk la hmm. kon tey mënoon nangul sa bopp nga ne yow danga nga am cosaan nit beneen ñëw defar nga ne noo kooku amul kon ñun ñëpp amuñu kon kooku jàpp naa ne am na fa moom am na ay penam hmm. yu ba def su état ñëwee dinañ wax ak moom yaakaar naa loolu loolu moo am solo quoi Euh, man kuy dënk doomu ñaar bi kan la. Mamadou Ba. man yëgu Mamadou Ba dañ koo dénk doomu ñaar bi. Hmm. man Mouli Faye laa dëkk Niago. mais nii nii élection bi bu mu jëlaatee bu mu jëlaatee dëkk bi tam. ba léegi nii man li ma man information yi ma dégg hmm. Moulay Faye mooy président domanial. Hmm. kon no. Momadou Ba mu nekk ko ci dara. non adjoint la rek xam nga àdduna comme li ñuy wax moom moom bu nekkee sax président domanial pour man moom deful liggéeyam même bu dee nekk na ko ndax moom mënu nekk président domanial ba pare yow dara xew ci domanial te ko président domanial mooy président affaire suuf hmm. kon problème wax kon bu nekkee mooy président de média wala moom jox nañ ko dënk nañ ko moom dënk biñ ko dënk kon ki dënk respecté wu ko ndax mënul dënk dara pare muy def te tàggu la ko respecté wu la voilà. mais nan ñoom waruñu wax xale yi dem leen ñu ngi seen ginnaaw ñoom ñoo war a jiitu sa waay ñoom ñoo takk drapeau ñoom ñoo takk drapeau vert vert zone say maire euh, président bu doon ñëw ñoom ñooy takk drapeau yi ne ci kanam. kon ñoom mënuñu wax ay sénégalais lambda jiitul kon ñoom ñoom la ñu fol pour ñu jiitu suñu rongo ñoom ñoo ko war a faj mais du ñun la ñuy wax jiitu leen ñun jiitu ñun ay sénégalais lambda lañ ñoom la ñu fol teg leen ci mairie bi pour suñu pour état tey bu doon ñëw wala président ñoom lay waxal yaa ngi dégg kon ñoom ñoo war a wax ay jiitu leen kan kan kan la ñuy jiital ku dul ñoom lan moo tax ñuy laajte kaddu askan bi kon. non de question Pierre dañoo complexe ba pare ragal ba pare di bëgg jiital booy yi boo ñu tëj booy yi ñoom ñu dem laaj xaalis loolu la ñu bëgg ndax ñëw mënoo wax yow ñu nga ngay jëw su poste ñëwee nga ne nañ ma fal ngay xëccoo yaa ngi dégg su su su su su su problème taxawee nga war a taxaw jàkkaarloog sa askan dimbali leen nga ne noo jiitu leen ma nekk seen gennaaw mais ñoom la jiital lu tax ñu jiital leen pare ñoom ñu nekk ñu bëgg ñun nañ nekk ci kanam ñoom ñu ci gennaaw ñoom la jiital ñoom ñoo jiitu nag hmm. ñun ñu topp seen gannaaw loolu mooy logique. Hmm. mais ñu xam nga xam nga tey àdduna àdduna man pour man lépp intérêt la hmm. lépp intérêt la tey ñoom booy li ñuy xeex seen intérêt ndax booy tey amuñu kër te Tivaouane Peulh dafa xat seen kër bàyyi lañ dëkk am nañ yaakaar boo paree ñu jot. soo gisee ñu Tivaouane Peulh naan suñu wàll suñu wàll suñu quota mooy tey Tivaouane Peulh ñi nga xamante ne amuñu ay kër ñu yaakaar nañ fa ay kër mais loolu loolu c'est normal mais bu bu ñu xeex nag benn nit di ko jëriñoo loolu mais intérêt général moo war a am ñëpp gis seen bopp. mais def fay nañ impensé ak noonu ba ma koy tooñ sax yooyu yëpp ko li ma gëm mooy nañu nañ def toog kooku. yow yaa nga problème hôpital problème leneen ak leneen ak coow ay ay hectares xam ne ñu fi tey maanaam est-ce loolu yenn na maanaam yaa ngi soxla suuf ñu naan la suuf amul pour def hôpital wala pour def lycée leneen ak leneen tey 42 hectares yi indi coow yi. xam nga tey Tivaouane Peulh soo xoolee li ñuy wax Tivaouane Peulh Tivaouane def feebar hmm. te Tivaouane Peulh pour mu wér day jafe lool hmm. ndax médecin bi koy faj dafa tukki ñëwagul. dafa tukki ñëwagul. ndax Tivaouane Peulh mooy dëkk boo xamante ne daf feebar te médecin bi faj dëkk bi ñëwagul hmm. waaw ndax dëkk bi moo nekk dëkk boo xamante ne yombul faj xam nga góom boo ko bëggee faj da koy raxas ba mu set hmm. ba mu set wicc nga dóor ci boo xool saf na wala saful da bomb hmm. ba mu saf nga dóor si alcool bu boobaa boo koy dóor alcool nga koy bandaas muy wér mais fii dañu raay góom bi dañ koy raay du mos a day gën a népp day gën a xeeñ waaw mais tey kon yow ci en li nga wax ma li booy daal dañ leen jiital pour loo xamante ne après problème day après ñi si ñi ñoom ñoo ci kaw ak moo après li nga xamante ne moom mooy moom mooy ak lan ngay conseil booy. non man may conseil booy li may conseil sama bopp laa leen di conseil ndax tey Tivaouane Peulh dafa nekk dëkk boo xamante ne pour man tey jaruñoo rey sa bopp. Hmm. ndax tey ñun gis nañ fi problème station bi. ñaata zone ñoo doon xeex foofu gis nañu problème bañik ñaa te jàpp ñu fi woon ay zone tey par exemple ñoom Abdou Aziz Fall hmm. arrêté woon nañ leen foofu hmm. te pourta seen seen moomeel la ak leneen ak leneen mais pourta bu mu sottee ñeneen ñoo ko jëriñoo. maanaam lu mu waxoon ak dëkk bi tam def ko te ñu bëri nee nañu am na ñoo xam ne rocceeku nañ dem négocier ak genre noonu tey ba waaw loolu la lay wax moo xeex du xeex amoon na fi mm-hmm. ba gaa yi ñun kenn du fa def dara mm-hmm. tey bi ñu négocier du dañ leen ne dañ defaral tali mm-hmm. la ñu wax latérite bi man rek mën naa ko defar si dëkk bi ah kon tey loolu tali la ñaata hectare dix hectare ñaata milliards la kon tey gis nga bu ñu fontoo gis nga suñu yi bu ñu fontoo nañu liggéey ñun fëluñu leen fii pour ñu nekk fii di négocier lu baaxul dañ leen fol pour suñu taxaw yi ñu taxaw suñuy réunion ñu toogal ñu fa ñu fëgg taabal waxal ñu dafa mel ni ay député assemblée askan bi lañu fa nekkal ñii nekku luñ fi maire nekku luñ fi keneen ñun ñii lañ fa nekkal kon maire bu waree def lu mu warul def nañ ko wax ne eh li ngay def arrête bu ñu woo population population bi taxaw mais bu dee maire bu defee ñu ni kii non maire du seen patron maire du seen patron maire conseil la comme ñoom dañ koo jiital mais yenn décision yi mënu koo jël moom kese voilà loolu laa bëgg ñu xam bu dee xamuñu lan mooy rôle conseil ñu ñëw ñu jàngal leen. Mmh. après gis nga bu fekkente ne waa dëkk beeg non tey bu ñu gagné waa dëkk bi kay gagné nañu waa dëkk bi man mënu ma ci dara mmh. bu ñu xoolee ba ñu gagné leen kay man mënu ci dara. man li ma gëm mooy nañu xoolee ba ñu bañ leen nax foofu la wax ji nekk nañu taxaw ba ñu bañ leen nax mais bu ñu leen naxee ba gañe leen kay loolu c'est c'est fini maanaam soo gisee ñu alerté mooy bañ ñu nax leen mais bu ñu xasee ba ñu nax leen ba ñu ba ñu def loolu li ñu leen di def ba ñu d'accord ñoom ñëpp ba ñu li ñu bëgg def gars yi def ko mais ñun mënuñu si dara ñun mënuñ arrêté géej ak loxo kese. manam am na loo dégg wala am na loo gis loo wala lan aglan aglan ak lan tey ba kat faaw ma sànni ci sama kàddu lan moo ci métti yow lu la ci métti dëggantaan waaw li ma si métti mooy Tivaouane Peulh dafa nekk dëkk boo xamante tay, bu bu problème amee maanaam bu dëkk bi nekkee ci khat, xat hmm. bu nekk dëkk dëkk bi nekkee jafe-jafe hmm. doo leen gis mais hmm. bu intérêt taxawee maanaam muy njëriñ li ñoom ñëpp ñu ñëw jiitu ñu ne non ñun ñu dañ koy lijjanti mënuñu lijjanti dara seen koñ yi sax mënuñu ko lijjanti nañu arrêté dañoo munut ba pare ñoo tardel Tivaouane Peulh nak ndax yàgg nañu xëccoo war a ànd ànduñu ku nekk sa intérêt personnel ba Tivaouane Peulh dugg ci guta kon man limu metti métti mooy grand yi nga xamante ne dañuy jël ay responsabilité te mutuñu ay responsable foofu la wax ji nekk nañu wax dëgg kon ñoom dal xam nañu li nga xam mo moom moo xew ci 42 hectares itam maanaam avant lii tey non même buñ nga xamul mm-hmm. mais ñoom dañ ko war a xam force ah. maanaam ñun dañ leen teg foofu pour ñu ñuy xoolal suñu ëllëg maanaam nit da nga gis nga nit votel nit dafa garaaw mm-hmm. maanaam da koo dënk sa ëllëg il faut ñu xam mm-hmm. loolu ñun ñoo leen dënk suñu ëllëg pour ñu xoolal ñu di ñu sàmmal di ñu coppatoo eh, njëriñ bu jóge si état bi ñu indil ñu ko defar dëkk bi mais suñu demee ba ñu naan non yëguñu dara lu xew kon lan moo tax ñu leen di fol nag nit booy follow ñun follow leen pour ñu pour pour pour ñu jox ñu xaalis dañ leen fol pour ñu liggéey ñun ñoo leen di ay ñoom ay mbindaan lañ ñoom ay mbindaan la ñun ñoo seeni patron ñoom kon ñoom dañoo war a rendre compte foofu la pour du ñun ñooy dem di leen rendre non non ñoom ñoo ñu war a wax lii ak lii moo xew kon tey mënuñu lu xew ñun yëguñu ba pare di ñu laaj xalaat ñun ban xalaat lañ ci am ñoom ñoo ñu war a wax voilà loolu nag moom ma métti nag. te affaire caaxaan yi dafa war a jeex Tivaouane Peulh te day jeex nag hmm. voilà day jeex de bu yeboo ñu xam ñun am nañ mbooloo hmm. gars yi dëggal nañu hmm. xam nañ fu ñu taxaw cër moo fi nekk ak respect ñun dañu créer beneen collectif pour mu leer pour mu leer dañu créer beneen collectif voilà te mu ngi wax mu ngi wax rek te campagne yi mu ngi jàppale woon ki nga xam ne moom mooy maire ko yow man président Macky Sall laa àndal man antuma ak ñoom. mais président moo ko moo ko jiital. Hmm. président mu ne respecté leen choix président ngeen ànd ak maire man maire ànduma ak moom pour mair moom xam na loolu man président Macky Sall moo ñu boole. Hmm. waaw ak président Pape Mayel Thiam. kon maire ànduma max moom pour ay man du ma ñi nga xamante dañu toog fii ñu leen di dem di nëbb di di dem ci gennaaw maire di di di yooyu déedéet maire xam na mu baax xam naa ko. ah maire gars yi tam nee nañu gars dem dëkk gu micro nga rek ndax mos nga jox IFA oto wala jox nga ko terrain. jox demal nga laaj ko du du du journaliste ga. Hmm. demal nga jël maire nga ne ko ndax mos nga jox fa xaalis wala oto. maire président moo ñu boole man du ma touriste damu dama ko jàppale ndax président Macky Sall ma gañal ko ndax président Macky Sall ndax Benno Bokk Yaakaar laa bokk ñoom ëppaluñu ma fa dara yaa ngi man bëgguma poste damaa jàpp dëkk bi baax nyom nyom xëccoo poste yi te li ma def ci élection yi xaaj bi ñoom defuñu ko ba ñu foloo ñoo war nyom géréel nyom defuñu ko kon man ànduma ak maire pour mu may jox ay poste ak wala xaalis hmm. man maire mënu maa jox lu ma amul hmm. il faut mu leer hmm. man li may am maa koy liggéeyal sama bopp man li may def si dëkk bi maire mënu ma kaa jox voilà kon nag man ànduma ak maire pour mu may jox ay oto mosu maire mosul toog ñu négocier lii nga may jox wala lee nga may jox ci micro laa nekk di wax ak télé maire dañoo ànd si ngor mu wax man waxu gor mu waxu gor mu wax ak Pape Mayel Thiam mu wax mu gor ñu ne ma demal nga ànd ak papis nga liggéey mm. ma ak papis liggéey ba ma gisee lu ma neexu ci élection député yi damaa boycotté téye sama bopp te dañoo ñàkk mm. te avant loolu wax naa ko la turbine woon ko meer mm. dama leen wax ne man élection député yi du ma leen jàppale ndax li ñu waxante woon dañoo gañe miir bi liggéeyuñu kon du ma leen jàppale waat ndax damay rusu jaxaloo askan bi chaque jour naan leen jàppale leen ñii du ma ko def man gor laa hmm. ñoom ñoom ñëpp seen intérêt moo leen tax hmm. man 15 millions laa génne def ko ci campagne bi hmm. musuma ànd ak sama caravane bop laa yoroon yor samay nitu bop digel sama bopp yor sama mbootaay ak samay groupement ak sama jeunesse kol nyom, su ma xëccoo ak mairie bi ñoom ñëpp ay mais man loolu taxu maa man intérêt dëkk bi moo ma ñor ay jiitu taxu maa lan nga bëggoon wax waaw li ma bëggoon wax te waxuma ci rek mooy Tivaouane Peulh nañu conscience maanaam nañu xam li ñu bëgg surtout dëkk bi mooy askan bi laay waxal hmm. population Tivaouane Peulh hmm. ndax euh, dafa dañoo toll foo xamante ne dañoo war a am fulla hmm. xam lan lañu bëgg tey ay njiit yoo xamante ne dañoo feebar ay njiit ñoo xamante ne dañoo dañoo xamu amul vision xamuñu li bëgg xamuñu Tivaouane Peulh mooy lan Tivaouane Peulh seetu la soo xoolee dakaar nga dem fu la neex Tivaouane Peulh nu mu positionné Tivaouane Peulh rek moo mel noonu Tivaouane Peulh nekk or nekk jamaa ñëpp bëgg fee dëkk. lépp fi fii teraanga moo fi nekk. Mm. dëkk bi dëkk teraanga la. Mm. dëkk sutura mm. ay njiit bu koo yàq si ay tappale si ay xëccoo si ay bëgg intérêt loolu nag population bi lay woo man mënuma def lépp li ma mën mooy gis lu baax sa dëkk bi ma andi ko war a dimbali dëkk bi dimbali dëkk bi si li ma yàlla suturaal ndax man lépp lu ma am Tivaouane Peulh laa ko amee kon damay dimbali damay jàppale Tivaouane Peulh ndax lan reconnaissance mais nag Tivaouane Peulh tamit ñoo war a dimbali seen bopp ñu leen soxlee ci élection ñu ñëw fëgg seen buntu kër di leen woo bu élection passé koo ci woo doo ko jot doo ko gis loolu def Tivaouane Peulh population bi nag foofu ñoo am am seen fulla am seen fayda ñun mënuñ leen wax ànd leen ak kii ñun woowuñu kenn pour politiquement man du ma politique politique de développement lay def mooy jàppale askan bi ëllëg nag bu ma askan bi jiitalee ma xam ne askan bi ma jiital waaye man xëccoowu ma poste xëccoowu ma njiit mais dëkk bi sama dëkk la lépp lu ma laaj dama koy def si fulla ak fayda nag voilà waaw maa ngi santaat yàlla bu baax di sant grand omal Mal hmm. di sant ñoom Moustapha Dessou di sant sama gaay hmm. yëpp wax dëgg yàlla di sant sama équipe hmm. yi ya yow tamit ñu lay sant di la gërëm waaw Maodo di la sant di la gërëm ak sa sa xam-xam ak sa expérience ak tamit gis nañ ni nga bëggee dëkk bi dem ba tey lépp lu tiyoon pour xewal rek yaa sol sa dàll te sa liggéey da nga cee ànd dañ cee boole tey yar ak teggin ndax tey information pour nga koy jàllale da nga koy vérifier ba mu leer la kon dem ba yàlla na nga am tele yu bëree bari ah. te ñun tamit war na la jàppale mm-hmm. di wax ne rek maa ngi santaat yàlla bu baax mm-hmm. di sant samay waajur mm-hmm. bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab di santaat ñëpp wa salaam. ok merci beaucoup. ok